ji dëmb ci marax gi la am ci ñaari yoon yu leralantoo ci euh, Sacré-Cœur doon deux voies yi foofele ab motaarub gendarmerie la ñu nekkoon moo fa dal di fiir benn soxna ak doomam donte ne bakkan waddu ci jëleen nañ ci ay gaañu gaañu Moustapha Ndiaye seede su njàkk si mooy addu ci micro mam Abdou Gaye Kassé waaye vers dix-neuf heures quarante man maay taxaw si arrêt bi di jël oto laa euh, gis euh, benn taxi garé en face si beneen tali bi am benn femme bu ànd ak doomam téye doom ji nii di jéggi quoi bu muy jéggi nag dafa continuer taxi bi bu mu jéggee ba pare la moto bi ñëw fekk ko foofu mu nekk si booru trottoir bi jël ko borom moto bi def benn genre bombe cinquante mètres daanoog moto bi après si la ñëw xool gis xale bi tànk bi damm maire bi tamit tànk bi damm léegi ñu wootee sapeur sapeur yéex a ñëw pap xale bi ñëw xaw a paniqué tuuti ñu defal ko après sapeur si la ñu yóbbu leen. mère bi elle était consciente. mère bi elle n'était pas consciente mais. quand même mi ngi saa yu kii bi euh, tànk yi naree feeñ mi ngi wàccee yére bi quoi mais xale bi moom il te consciente xale mi ngi toog di wax te loxo yaay ji gars yi di ko kiiwal euh, kii bopp bi nii mais xale bi tamit dafa naa dafa am euh, damm dam am na choc ci si tànk bi moom it. yaay ji fan moo dam yaay ji tamit tànk bi dafa naa tànk droite bi la tànk droite bi moo damm xale bi tamit tànk droite bi parce que nu ñu doon jéggee noonu. jéggi nañ ba pare mais moto bi tamit dalu leen nii carrément jot moto bi noonu xam moto genre bi day rëy cat bi moo leen xaw laal quoi. ñoom moo tax ñu ñu ñu daanu. lu ma jaaxal ci accident bi maire bi ak xale bi bu ñuy jege dañu téyante même bu ñuy daanu dañoo téyante ñoom ñaar.